أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñu ngi suratul baqara di tàmbale tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala aye 31 aye 32 ak aye 33 aye yi nekk sunu kanam muy ñetti aye borom bi tabaraka wa taala mu ngi ci xabaar benn xew-xew bu amoon ci benn pénc ci pénc buur yàlla tabaraka wa taala yi buur yàlla di feeñal ci daje boobu ci pénc moomu ci xew-xew boobu kàttanam moom yàlla tabaraka wa taala ak xam-xamam ak xereñam borom bi feeñal na ci kàttanam feeñal ci xam-xamam feeñal ci xereñam ci ñett mbir yooyu nga xam ne day waral ci doomu aadama mu xam ne yàlla mooy boroomam mu jaamu te mooy keroog ba mu dajalee malaaka yi aadama nekk seen biir borom bi laaj leen ay mbir laaj ko malaaka yi malaaka yi tëla cee tontu borom bi laaj ko aadama aadama tontu borom bi yëgal ci malaaka yi ne leen xam naa lu ngeen xamul ñu yëg na ñoom malaaka yi ndeke du ñoom dong ñoom ñooy mbindeef yi yàlla bind jox leen daraja jox leen màggaay déedéet ñoom nag loolu lañ foogoon waaye gis nga la ñuy màgg màgg màgg la ñuy rëy la ñuy am daraja suufe nañ keroog ci borom bi tabaraka wa taala te delloo ko lépp xam ne moom mooy lépp kon ixwaan ñetti aaya yooyu tey bokk na ci liñ ciy jële ci njàng أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون buur bi subhaanahu wa taala mu ngi wax ci ñetti aaya yi wa allama jàngal na kan moo jàngal yàlla kan la jàngal aadama wa allama jàngal na aadama aadama nabiyullahi abul bashar alayhi salaam abakar jaabir aljazair loolu la ko wax nabiyullah abul bashar yonent yàlla la mooy bàyyi mbindeef yi aadama lu muy tekki mooy adimul ard mooy ku njëkk ci suuf si loolu mooy aadam mooy adimul ard ku njëkk ci suuf borom bi tabaraka wa taala nee na maa jàngal aadama kon aadama am na professeur bu rëy te mooy yàlla waaye luñ ci dégg mooy nit balaa benn mission balaa benn liggéey balaa benn mbir foog njàng ba pare foog njàng saa njàng dara du baax tey nag ñun loolu mooy suñu problème dañ jël Sénégal jiital lépp ci ay fooki caaxaan mu jënd njàng soofantal ko gis nga daanaka mën nga ne année bi am na élèves yoo xam ne ba léegi jàngaguñ jàng bi ñaata weer la buñ ci gindee 9 mois buñ ci dindee 6 mois yoo xam dañ koo grève ñeneen ñi lu ñuy jàng 3 mois après ñu defal leen examen bu ndaw ci loolu ñu jàng tuuti ñu ne ñi am nañ xam-xam kan la ñuy nax ah te léegi ñëpp lu ñu seetlu mooy niveau bi dafa baissé kenn jàngul parce que lu tax ñii jàngale amuñu formation ñi ñuy jàngal nanguwuñu jàng état bi ñuy bi santaane njàng mi njàng mi ñoru ko fu nit ñi jëm nit ñi saa xam-xam dañuy alko yàlla bi mu bindee aadama day ngeen li mu wax balaa yàlla di ko sant benn mission lu mu wax wa allama jàngal na aadama aadama yàlla nee na jàngal naa aadama li tax nag mooy yàlla ba mu bindee aadama ba mu bëggee bind aadama sax dajale na malaayka yi ne leen dafa am bindeef moo bëgg a sàkk malaayka yi am luñ ci wax yàlla ne leen xam naa lu ngeen xamul kon tey laaj na borom bi tabaraka wa taala loolu mu leen waxoon mu won leen ko waaye yàlla ko maandu la au lieu que mu bind aadama rek cëppeel ko ci kaw suuf dajale na malaaka yi aadama nekk seen biir yàlla jàngal aadama dugal ko ruq formé ko waaye boobu yàlla di jàngal aadama di ko testé di ko formé boobu yàlla am na lu mu ci namm yàlla lan la jàngal aadama mooy jumtukaay yi aadama di soxla ci àdduna bagage ñoom illeur ak ñoom gopp ak ñoom pikk ak ñoom peel ak ñoom kuddóog ñoom cin ñoom paaka bagage yi la ko yàlla jàngal bagage yooyu boo leen xoolee au fond di nga yëg ne malaaka yi soxlawuñu ko lu tax malaaka yi soxlawuñu ko duñu lekk duñu naan ku dul lekk doo naan looy doyee kudd looy doyee potu ndaal looy doyee ndaal looy doyee bool mais kon kii lekk di naan ah moom lañ ko jàngal waaye moom it boobu ndeysaan ñu ko jàngal dafa mel ni xamul woon lu ci yàlla jublu fekk moom yàlla tabaraka wa taala du def dara pour hasard yàlla jàngal na aadama al asmaa tur ya mooy turi bagage bagage yooyu nga xam ne mooy asmaul ajnaas kulluha lépp la ko yàlla jàngal kalma lu mel na ndox mu ne ko li ndox la wa nabataat li gàncax la wal haywaan wal ins ak leneen ak leneen ak leneen la ko yàlla jàngal lépp lépp la yàlla jàngal aadama bàyyiwul dara al asmaa kullaha lépp lépp la ko yàlla jàngal yàlla bàyyiwul dara bi mu ko jàngalee ba mokkal nag yàlla dugal ko ci classe cib saal cib pénc moom borom bi tabaraka wa taala aadama ak malaaka yi summa topp aradahum mu gaaral leen ñoom malaaka yi almusammayat mooy yi ñu waxoon sànq yàlla dajale ko ci seen kanam di laaj malaaka yi ak aadam arada almusammayat amamahum mu daal di gaaral bagage yëpp ci seen kanam par benn la yàlla di laaj lii lan la malaaka yi du ñu xam lii lan la mu ne aadama lii lan la aadama ne lii portundaal la mu teg ko te bu yëkkatiwaatee ne lii lan la malaaka yi ñu ne ñun xamuñu mu ne aadama aadama ne lii kuddu la ah. allahu akbar classe groupe ak benn nit xam nga boo nekkoon ci benn classe nga nekk ak nit ñu bëree bëri ñuy laaj nit ñi yow doo nga yaay tontu sa- da ngay am code sa code day yëkkatiku bu yàggee sax rëy mun na laa jàpp ngay wengal mbagg ndeysaan yàllaa ngi laaj bagage yi du hasard malaaka yi du ñu xam loolu parce que ñoom soxlawuñ ko mosuñu ko gis soxla duñ ko doyee dara aadama mi nga xam ne moo ko war a utiliser ji moo koy doyee dara kon c'est normal mu xam ko loolu la xel nangu mais ñee nga xam ne doyewuñ ko dara duñ ko xam borom bi tabaraka wa taala nee na summa topp aradahum gaaral naa mbir yi alal malaikati ci malaaka yi waxoon naa leen malaaka ñooy ñan bi passé fàttewu leen ko fa qaala mu ne leen ñoom malaaka yi am bi uuni solo leen ma xabaar leen ma axbiruuni xamal leen ma solo leen ma wax leen ma bi asmaai haula turu yii turu mbir yii mbir yii wax leen ma seen tur yan mbir yii ma gaaral seen kanam yii ngeen di gis nii ci saal bi yii nii ñu teg ci kaw taabal yi wax leen ma lan la benn par benn yii ñu teg seen kanam wax leen ma ko ndeysaan am bi uni bi asmaa haula wax leen ma turu mbir yi in kuntum saadiqin bu fekkee yéen yéen a wax dëgg yéen a nekk ci dëgg yéen a wax dëgg gi fan la jëm mooy ki wax ji ñu waxoon démb ne atajaalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wax ji fan la jëm su fekkee yéen da ngeen ne woon démb damay def mel mbindeef muy ñëw ci kaw suuf di yàq di tuur deret te yéen yéen a sell wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu lak yéen a sell yéen a baax yéen a mel nangam yéen a mel nangam tey nag bu fekkee yéen a wax dëgg teg naa ay bagage fii wax leen ma bagage yi lu ñuy tekki in kuntum sadiqin bu fekkee yéen yéen a nekk ci dëgg allahu akbar hazan na ba la ilaha illa allah fa qaala mu ne am bi uuni solo leen ma wax leen ma bi asmaai ci ay tur haulaai yii almusammayaat in kuntum sadiqin bu fekkee yéen yéen a nekk ci dëgg yéen a wax dëgg in xarfu lan la in xarfu charte la su fekkee yéen yéen a wax dëgg yéen yéen a sell yéen a baax yéen a am xam-xam kon lii ñu teg seen kanam war ngeen koo xam ndeysaan waaye gis ngeen malaaka yi waxoon nañ samedi passé ne comme ñoom ay mbindeef la ñu dul mooy yàlla kon waruñu rëy ci kanamu yàlla qaalu ñu ne ko ñoom malaaka yi subhaanak sell ñeel na la allahu akbar ñun dey laa ilma lana amuñu xam-xam illaa lu dul maa allamtana loo ñu xamal yàlla ñun dey xamuñu lu dul loo ñu xamal allahu akbar li mooy li mooy maanute loo xamul bu ñu la laajee nga ni xawma ko waaw gis ngeen saxaaba yi suñ leen laajoon dara dañ naan allahu wa rasuluhu aalam ñun xamuñu yàlla ak yonent moo xam mais gis nga ñun boo fi laajee kenn dara au lieu mu ne la xawma ko mais day jéem a ijtihaaj di góorgóorlu nee day tontu Sénégal ñëpp mufti lañ moo tax ñu am alamul islam yi xam ngeen lu ci indi xilaaf ah ñi xamul ñiy tontu law sakata allazi la yaarif la sakata alxilaaf law sakata allazi la yaalam la sakat la sakata alxilaaf ki xam ñi xamul bu ñu noppi woon rek wuute gi léegi mu jeex mais tey ñi xamul ñoo jiite da ngay gis ci Sénégal Sénégal xalifa général boo xam ne mokkul lu juzu am na loolu góor gi doon wax ne daara ju amul daa daara ju amul daa suñ tàggatee nit ñi fu ñu leen jëme jahannam gis nga nit buñ ko jàngalee yaruñu ko yàq nañ ko suñ ko yaree jàngaluñ ko yàq nañ ko dégg ngeen wax suñ ko jàngalee kese kese kese yaruñu ko bandi lay nekk ndax naxaatekat lay nekk loolu la tubaab di def tubaab day jàngale te du la yar moo tax képp ku génn ci tubaab luñ ko mënta jox mu yaaxu waaw léegi nag duñ la suñu suñu suñu suñu sàccee ba pare duñ ne sàcc la dañ naan détournement kii bu sàccee 500 ñu ne sàcc na ki sàcc 1 million ñu ne dafa détourné dégg nga wax parce que dañuy indi moo yoo xam ne dañuy wàññi degré danger bi ñu def loolu moo tax tubaab képp ku mu jàngal dalay yàq ay sew-sew yu garaaw lay bàyyi ci yow moo tax gis ngeen tubaab yi lu ñu tëral yëpp ci wàllu dundinu àdduna luy nax nit ñi la daa ngay jox ay misaal da ngay dem léegi Senelec di fay sa sa sa facture 3000 la ñu ñu ne la timbre timbre ñaata la est-ce que après dañu ciy taf timbre imaginez Sénégal gi yëpp ku nekk 200 ñaata la ñaata million la sàcc la Senelec def noonu SDE def noonu Sonatel lépp looy fay rek ñu ne timbre te kenn du ci def timbre am benn timbre timbre bi pour la la waaw léegi xoolal loolu ñaata milliards la ñuy sàcc foo dem ñu ne la timbre timbre timbre timbre ana xaalis bi parce que tubaab mooy bànn yi mooy sàcc xaalisu réew mi ah xoolal nit ñi dëkk ci suuf si ñu ne da ngay fay impôt koy fay ah loolu moo tax su nit suñ ko jàngalee yaruñu ko bandi lay nekk mais buñ ko yaree jàngaluñ ko mbaam lay nekk xam nga léegi mooy nga li ngay gis ñu naan ñii ñi dañ leen a tàggat dañ leen a tàggat ñu def dàllu neen duñ sol sax dàll boo leen ne woon yëkkati leen oto bi yóbbu ko fee ñu yëkkati ko yóbbu ko parce que ay mbaam la ñuy nekk dañ leen a yar jàngaluñ leen kuñ yar jàngaluñ ko baaxul kuñ jàngal yaruñu ko baaxul yàlla bi mu yónnee yonent yàlla Muhammad lan la wax ci suuratul ah suuratul jumaa huwa alladi baasa fi l ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi tarbiya baa ngoog wa yuallimuhum alkitab jàngale bi doog a ñëw yar jàng mooy ànd bu njëkk ba dañu doon wax éducation nationale léegi nag ministre enseignement nangam enseignement profession nangam nangam nangam amatul éducation musiba am nit ñi dañ leen war a yar islam ne ne dañuy yar jàngale yar jàngale ni dañ koy yar jàngal ko yàlla lu mu njëkk a def aadama jàngal ko mi ngi nii wa allama al aadama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaika fa qaala ambi'uni bi asmaai haula in kuntum sadiqin gis nga bañ ko jàngalee bañ jàngalee ba xamal ko yàlla gaaral mbir yi laaj malaaka yi malaaka yi nga xam ne laa yaasuuna allah ma amarahum wa yafaluuna ma yumaruun qaalu ñu ne ñoom malaaka yi subhaanak sell ñeel na la yow yàlla yaa sell allahu akbar ndeysaan yow yàlla setal nañ la soril nañ la setal nañ la ci lépp lu taq soril nañ la ci lépp lu manqué yow yàlla tabaraka wa taala ñun de laa ilma lana amuñu benn xam-xam illa lu dul maa allamtana loo ñu xamal loo ñu xamal dong lañu xam li ñu xamalul xamuñu ko allahu akbar innaka yow yàlla anta yow al alim yaay expert bi yaay aji xam ji al hakim yaay aji xereñ ji gis nga niñ bàkkee yàlla ah parce que dañ koo xam gis nga bu doon ñun ñii rek la boo nag fay rek naan bon je pense que il paraît eh bien alors comme ça waaye ñii comme yàlla moo leen bind bàkk leen yàlla xam na leen ñu delloo yàlla mbir mi ne ko sell ñeel na la ñun de amuñu benn xam-xam lu dul ñu loo ñu xamal innaka yow yàlla anta yow al alim yaay aji xam ci Hmm? yaay aji xam ji alxakim yaay ko xereñ ki loo neex rek ngay def te loo def noonu la léegi luy xew comme yàlla laaj na malaaka yi xamuñ ñoom ñoo woote woon démb ne ñoom ñooy ponkal yi ñoom ñooy ngand yi ñoom ñooy borom xam-xam yi ñoom ñoo gën a foor ci mbindee fi yàlla bind ba ne yàlla ndax da ngay def ci kaw suuf kuy yàq te yàlla laaj na leen xamuñu ba ñu feeñal ko fii la yàlla feeñale màggaayu aadam wa huna zahara sharaful aadam alayhi salaam yàlla feeñal màggaayu aadama nag qaala mu ne moom yàlla yaa aadamu e yow aadam ambi'uhum xamal leen bi asmaa'ihim seen tur yi xamal leen turu mbir yi loo yàlla yëkkati ne lii lan la aadama ne lii nangam la lu yàlla yëkkati ne aadama lii lan la aadama ne yàlla lii nangam la falamma ambaahum yàlla nee na ba nga xamante ne aadama xabaar na leen xabar na leen mbir yi bi asmaihim ci tur yi léegi lu des qaala yàlla ne leen alam aqul lakum ndax waxuma leen woon inni man yàlla aalamu xam naa xayba samawaati kumpa yi nekk ci asamaan yépp xam naa ko wal ard ak suuf kon yàlla lu ko fi réer ah am na lu réer yàlla lu mu xamul yaa leen jox benn misaal rek ci lu ndaw leen doon ne yàlla lépp la xam amul lu ko réer bu yàlla tabaraka wa taala doon réere la dara kon ci da nga dégg sax benn jour ñu ne nit kii de kii de yàlla da koo fàtte kii du dee yàlla da ko fay fàtte xoolal nit ñi nit ñu bare xoolal monde bi nit ñi toll ruq boo dem doomu aadamaa nga fa te ñëpp ay dee doo dégg mu fàtte nañ jiw te pourtant kër gi léeg-léeg am na fu ñuy yegg rek ñuy añ sax fàtte nit wala ñuy rek wala ñuy tëdd sax te kër gi ah ana diw eh inna li kii di ñëwul gis nga xoolal yàlla nag moo tax malaaka yi liñ ko wax mooy dëgg laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta al alim bàyyiwul dara waxoon naa leen keroog lu tax qad ahaata allahu bi kulli cheyin ilman yàlla moo wër xam-xam lépp lu mu def xam-xam la ko defee yàlla deful dara teg ko nii ci lu amul xam-xam doomu aadama yenn saa yi mu làmbat def ay mbir yoo xam tegu ko ci xam-xama amma allah subhanahu wa taala lépp lu mu def ci xam-xam la ko teg d'accord ngeen loolu dalu ñuy dugg ci science bi yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko def moo tax léppam tegu ci yoon léppam nekk dëgg ndax ci xam-xam la ko teg lu tax ndax mooy ku xam ki doomu aadama nag xam-xam bi mu am sax yàlla moo ko may te tuuti la ci am wa ma utitum min al ilmi illa qalilan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla moo xam yéen xamu leen ndeysaan yàlla mu ne tabaraka wa taala fa lamma ba nga xamante ne am ba ahum xamal na leen soloo na leen bi asmaihim ci turu mbir ya qaala mu ne alam aqul lakum ndax waxuma leen woon man yàlla waxuma leen woon yéen malaaka yi inni man yàlla aalamu xam naa xayba samawaat lépp lu lënd lépp lu fàddu ci asmaan yi xayb mooy kumpa mooy li nga gisul li nga xamul yàlla nee na xaybu samawaat xam naa ko xaybul ard xam naa ko lu fi des ah jàngeen ci alquran yàlla mu ne yàlla xam na lii dugg ci biir suuf maa yaliju fil ard wa maa yaxruju wa maa yanzilu min alsamaai wa maa yaruju wa huwa maakum jàngeen yàlla mu ne xob yi sax xob yi wadd ci kaw garab yi yàlla mu ne xam naa ko amul bu wow amul bu tooy yàlla mu ne xam naa ko jàngeen yàlla imam Malik dafa gént mu gis malakal mawt imam Malik bi mu gisee malakal mawti mu ne malakal mawti ñaata fan moo ma fi dese malakal mawti ne ko nii daal dem yoonam imam daal tiit yeewu ne mbaa du juróomi minute mbaa du juróomi heure mbaa du juróomi fan mbaa du juróomi semaine mbaa du juróomi weer mbaa du juróomi at bopp bi ubbu xamul juróomi lan la lu mu laaj seet loolu dafa ne loolu du loolu ndeysaan Malik di wër di wër ba dajeek ab borom xam-xam mu ne ko man damaa gént gis malakal mawti ma laaj ko lan moo ma fi dese mu ne ma nii xaw ma loolu lan la mu ne ko def laa wax juróom yooyu kenn xamu ko ku dul yàlla moom sax xamu ko moo tax mu ne la nii juróom yooyu yàlla rek moo ko xam moo nekk ci fin suuratu moo nekk ci fin suratu luqman suratu sajda sajda la suratu luqman de moo fa nekk suratu luqman ci fin bi an sa kaamil suratu luqman ci fin bi la nekk juróom yooyu yàlla rek moo ko xam moo tax mu ne ko nii dem yoonam bi mu laajee mu ne ko moom da koo xamut moom malakal mawti sax xamu ko daf ko daf laa wax ne moom juróom yooyu moom sax xamu ko yàlla rek moo ko xam ndax li nga ko laaj xëy bu la kañ laay dee kan moo la mën a wax kañ ngay dee kon xëy bu la yàlla rek moo ko xam xaybu samawaat inni aalamu xayba samawaat man yàlla maa xam kumpaay asamaan xaybu xaybu kenn xamu ko yàlla rek moo xam xaybu qul laa yaalamul xayba man fi samawaati wal ard illallah kenn xamul kumpa yàlla moo ko xam yonente bi saa salaam nee na law kuntu aalamul xayba lastaksartu min al xayr wa ma massaniya su su ma xamoon suba luy xew kon ci jàmm rek laay nekk ci jàmm rek wa ma massaniya su kon dara lu bon du ma laal yonente bu xamoon xëy bu kon dina dem Uhud ñu gañe ko dóor ko ba xuri óom yi damm bëñ bi rey sahaaba yi abadan law kuntu aalamul xayba man yonente bi bu ma xamoon kumpa kon lastaksartu min al xayri kon lu baax rek laay am lu baax rek ndax saa yu ma xamante ne tey su ma jógee am dara damay dem saa yu ma xamante ne tey bu ma demee du neex ma toog léegi nag ñiy woote ne xam nañ suba liy xew nag te xoolal léegi Sénégal ni mu garaawee da ngay gis rajo rajo rajo bi nekk fële àllaaxira waa ji nekk fi allo mu ne wëy mu ne dama bëggoon nga seet mu ne waaw yow day incha allah fan yi di nga takk soxna sa jabar daa am fan yi daa am doom xoolal fen yi rek yow rajo téléphone koo musta gis xamoo ko nga naan da nga koy waxal dëgg da nga koy da nga koy seetaan kon fen yi fii la njëkk a tàmbalee xanaa sax boog loo ñeme ñeme yàlla boog nga ni waa ji kaay toog ngeen jàkkaarloo mais téléphone ah te xoolal muus nañ muus goo xam ne léeg-léeg ñu ne ñu ne waa ji ah yow de sa jabar ji dina am doom mu ne non ama jabar ñu mu rectifié ko ah kon dey am na koo dëkkal ci gis nga duñ muus maxraj waaye ñi ñi ñiy woote ñooy dof rek moom bu xamoon dara dina dem ci rajo bi ñu koy woo tukulóor dañuy wax ne allah du sina nafan na mu taa koy xóore joomu kaay leen ma seetal leen seetalal sa bopp yow mënoo seetal sa bopp sama yaay dafa mos a xuloog benn waay ndeysaan ci oto dafa am benn waay bu demoon toolu sëriñam liggéey yi bi mu demee baaraam bi dagg fa yéen nag bi baaraam bi daggee jaasi lañ ci dóor mu dagg ñu ne faj nañ ko ba mu wér ku mu joxoñ ne la day baax rek ñu ne yow sa affaire day baax ñu ne sëriñ bee ko ñaanal lool léegi waa ji moom na la def ñëw croisement tali bu mag rek taxaw super bu tourné rek muy joxoñ nit ñi day baax gars yi di joxe juróomi dërëm kum ne day baax rek nga jox ko juróomi dërëm mu ne nii sama yaay sama yaay ne ko baax na ba pare oto bi départ nit ñi indi problème am na ñoo xam ne gëmuñu ko mais gis ngeen kii toolu nangam la gaañoo woon foofu lañ ko ñaanalee nangam nangam sama yaay ne leen hé bu doon day baax du taxaw fii ci tali bi kii bu baaxee yéen a baaxal mbiram juróom yee ko baaxal xam nga nit ñi duñu yeewu bu ko nit ñi dajale woon juróomi dërëm di ko jox affaire am du baax ñu ne day baax bu doon day baax kay day toog këram ne bopp joxoñ boppam ne day baax rek mu baax wala nit ñi dañu war a xalaat kii nangam ak nangam nangam waa ji ne daa am xam-xam dem ba marché lal di jaay ah kii ku ko takk dootoo tàqali ko xaalis te moom mu ngi ñëw di jaay nga ñëw jënd xam nga ne yow mi jënd dof nga kii xoolal fu mu déparé xoolal ñi gisaane ci ëpp ci rajo yi ñu ci ëpp étranger lañ jóge ay Guinée Bissau ay Mali ay Nigéria bu ñu xamoon dara dinañ ñëw Sénégal duñ toog foofu kon
dañu xam ne léegi si lañ moo tax ñu ñëw fii.
mais dañu xam ne ñi ay dof lañ loo leen wax ñu ñu gëm ko nit day muus sànq maa ngi nettali mbokk yi benn kàccoor boo xam ne dafa bandi woon saay-saay waaye xam nga saay-saay bu dajeeg boroom xam-xam rek saay-saay boroom xam-xam rek moo mun ci moom dara waa ji nekk ak benn xaritam xarit bi dénk ko alalam dem tukki xarit bi ñëwaat ne ko ana sama xaalis mu ne ko xawma la yow yaay kan ko xamuma mu ne ko yow kay xawma la tey laa la mës a gis koo nekkal fukki at mu ne ko yow waxal dëgg xamuma mu ne ko yow xawma la waaye ne ko da ngay caaxaan wala mu ne ko bu la neex foo neex nga dem xawma la musuma dénk dara waa ji dugg fu nekk dem dem tribunal dem gis benn borom waxoo ko mu ne dama nga wax waa ji ñëw mu ne ko xam nga kii mu ne xam naa ko kay kii maa ko dénkoon sama xaalis dem tukki mu ñëwaat di ko laaj mu ne jox ma ko dara waa ji ne ki ñu dénkoon xaalis bi yoo xam nga kii mu ne xaw ma ko de kii xaw ma ko kii moom tey laa wax ma sa gis waa ji ne ki dénkaane woon xaalis bi yow kii foo ko dénkee woon xaalis bi ak kan moo ko fekk mu ne ko man ak yàlla ñoo ko fekkee woon ak moom mii ci jàkkalaat ko dénke woon ñu julli ba pare ñëpp génn man ak moom ak yàlla ma jox ko sama xaalis mu ne ko damay tukki mu ñëwaat mu ne xawma waaj ne ki ñu dénkoon yow loo wax ci loolu mu ne du dëgg kii xawma ko ah léegi yow waa ji kon ki yow mi dénkaane woon xaalis bi xam nga jàkka ji mu ne waaw mu ne demal ci jàkka ji ngeen di fa benn kaamil yéen ñaar ngeen waat waaj daa dem yàgg yàgg lool sëriñ bi moom mu ngi nekk ci ay mbiram di dox di ñëwaat am lu muy def ba càgg mu ne ki ñu dénkoon xaalis bi waaye yow sa waa ji yàgg na de xanaa jàkka ji du fii rek dafa sori mu ne ko non jàkka jaa ngi ci ginnaaw dëkk bi mu ne ko fayal xaalis jàmbur fan la ko jàppee mës ngaa gis yow xamoo ko kii xamoo ko ba pare nga ni jàkka ji mu dem mu ngi ci mu ngi ci ginnaaw dëkk ba noo xamee jàkka ji gis nga ci xel la jàppe waa ji mais bu toogoon foofu rek nan la ciy génne foo nit ñu jàngal ko moo tax gis nga yàlla tabaraka wa taala moom rek moo xam kumpa keneen xamul kumpa amul kenn ku ko xam moo tax mu ne inni man yàlla aalamu xam naa xayba samawaat kumpaay asamaan wal ard ak suuf wa aalamu xam naa maa tubduuna li ngeen di feeñal xam naa ko wa maa kuntum taktumuun ak li ngeen di nëbb yenn saa yi ma wax leen am na benn borom xam bu tudd Sayid Hawa rahimahullah yal na ko yàlla yërëm dafa wax bu ngeen jàngee alquran mooy na ngeen bàyyi xel ay fu ñuy jeexee gis ngeen aaya ñetti aaya yi aaya bi fan la jeexee wa aalamu ma tubduun yàlla nee na xam naa li ngeen di feeñal wa ma kuntum taktumuun xam naa li ngeen di nëbb lépp lu ngeen di feeñal xam naa ko lu ngeen di nëbb bañ koo feeñal xam naa ko souvent doomu aadama lan lay nëbb li baaxul li mu bëggul kenn xam ko li mu bëggul kenn yëg ko loolu ngay denc lan lay génne li baax ak li mu bëgg nit ñi gis ko xatta sa biir kër sax am na fa mbir yoo xam ne bëggoon nit ñi gis ko yàlla nee na xam naa ko xatta sax ci saw sa bopp ci sa biir yaram am na loo xam ne feebar yoo xam ne bëggoon nit ñi yëg ko yàlla nee na man nag lépp laa xam wa alamu xam naa maa tubduun li ngeen feeñal xam naa ko wa ma kuntum taktumuun ak li ngeen di nëbb xam naa ko ndeysaan lu ngeen feeñal ci ay wax ci ay jëf xam naa li ngeen nëbb ci ci biir bañ koo génne man yàlla xam naa ko yéen malaaka yi li ngeen nëbb xam naa ko li feeñ iblis def ko xam naa ko malaaka yi liñ nëbb mooy ñëw ci kaw suuf aadama bañ a ñëw iblis lu mu nëbb ci xalam ba yàlla yëg ko mooy ana xayrun minhu kii maa ko gën yàlla nee na yooyu yëpp xam naa ko iblis li mu feeñal ci kaw ba ñëpp gis ko mooy yàlla ne ko usjudu mu lànk aba wastakbara mu feeñ dàkk ñële luñ nëbb mooy atajalu fiha man yufsidu fiha yàlla nee na lépp laa xam yaa ngeen ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñett ñi njëkk a dugal safara kenn ki da doon jihaad kenn ki borom xam-xam la woon keneen ki borom xaalis la woon ñett ñi lañ njëkk a dugal safara ki doon jihaad bi ñu ko nee jëmal safara mu ne ma man yàlla ma doon jihaad di rey ay nit yàlla mu ne ko yaa mën a fen da nga doon jihaad waaye jihaatu woon ngir yàlla da nga doon jihaad ngir ñu ne yow jàmbaar nga nit ñi wax nañ ko jeex na kooku yàlla moo ko xam xam nga nit ñi mënuñu xam lool nit ñi lu ñuy gis ci kaw mooy kii jàmbaar la kii jaaseem ñaw na kii ñeme na mu mu mu jaaxi dëgg ngi nii ndeke ci biir moom am na lu mu nëbb moo tax yéene yi foog ñu koy sellal keneen ki dafa doon jaay xam-xam yàlla mu ne da ngaa bëggoon ñu ne sa baat neex na ku am xam-xam nga wax nañ ko keneen ki borom xaalis da doon da doon joxe yàlla mu ne da ngaa bëggoon ñu ne yaa baax am na koo xam ne yaayam la doon liggéeyal danaan boot yaay ji di ko sang di ko toggal muy lekk di sang yaay ji di ko solal yére mu dee yàlla mu ne yóbbu leen ko safara balaa kay ne yàlla kii gisuñu ci këyitam yu bon te kii da daan liggéeyal yaayam borom bi moo xam tabaraka wa taala mu ne malaaka yi kii saa yi joxoon yaayam lekk wala mu def loolu muy def ba pare danaan allahumma xuzha waarix nii minha yàlla sama yaay mi yàlla na dee ba ma noppalu loolu la xol bi doon wax loolu la nëbboon danaan def geste yi ci kaw waaye xol baa ngi naan yàlla sama yaay yàlla na dee ba ma noppalu moo tax yéene yi na sell te iblis ku garaaw la di nga am yéene jóge sa kër di julli si nga ñëw ba ci jàkk ji mu ne la jàllal ci kanam taxawal nga taxaw mu ne écartel say tànk yëkkati say loxo dóoral allahu akbar bu garaaw da ñépp xam ne yow yaa leen dàq julli nga ni allahu akbar mu ne dana tajwid bi neex de aoudubillahi min ashaytan alhamdulillahi rabbil alamin mu ne la rekoo bi yàgg de na si jóg nga sëlmal asalaamaaleykum amoo ci dara parce que yàlla taxul lu garaaw la nag ak a garaaw indi doon na innama axaafu aleykum assirkul asgar qaalu ya rasulallah ma sirkul asgar qaala riya li ma ragal ci yéen rek mooy bàkkaale bu ndaw saaba ne yonent luy bàkkaale bu ndaw mu ne mooy ngistal te iblis moo koy def ci nit ci lépp nag jàng xam-xam julli lu nekk iblis da koy day ñëw lépp lu yàlla taxul da ngay perte moo tax te li ngay nëbb ak li nga feeñal yàlla nee na xam naa ko bu fekkoon ne sax nit ñi ngay nëbbu yàlla mu waaye yàlla neen lépp laa xam waaw amul lenn looy def te xaw ma ko ndax kumpa yépp laa xam alamu xayba samawat wal ard wa alamu ma tubduun wa ma kuntum taktumuun xam naa li ngeen di feeñal xam naa li ngeen nëbb kon li fi des lépp looy def rek nga sellal ko bu kenn tax na yàlla tax sooy julli na yàlla tax booy saraxe na yàlla tax booy jàng na yàlla tax booy wax na yàlla tax lépp loo def yàlla taxul perte nga loolu yaram buy metti coono nga ci jëlee mbokk yi ñetti aaya yi ñu jàng dinañ ci jëlee ñeenti mbir bi ci njëkk mooy bayaanu qudratullah yàlla day leeral kattanam haysu allama aadama al asma yàlla day leeral kattanam fii ci aaya yi ndax jàngal na aadam almaxluqaat kulluha mboolem li ko yàlla nammoon a jàngal ci mbir yi ma waxoon yàlla jàngal na ko yépp li ko yàlla jàngalee ba pare fa allamaha mu xam ko fa alimaha mu xam ko yàlla jàngal na ko li ko yàlla jàngal mu xam ko ñaareel mooy sharaful ilmi tedd nga xam-xam wa fadlul aalim ak ngëneelu borom xam-xam alal jaahil ci ko xamul chaque jour ku xam ak ku xamuñ bu ñu àndee ku xam ki mooy yëkkati ko gis nga tey boo àndoon ak benn borom xam-xam bu wàcc alxuraan wàccoo yow xamoo dara ngeen ne tëll moom la ñuy njëkk a nuyu ak yow bu simmee daal yi nga simmi sa daal daalu kan la ñuy téye ah bu ñu indee sées nga toog leen kuy njëkk a toog xam-xam moo am solo ak boroom xam-xam moo tax nit ñi war a jàng te diine islam bi ku jàngul bokkoo ku jàngul bokkoo ci de aaya bi njëkk a wàcc iqra la wax jàngal borom bi tabaraka wa taala li mu terale aadama mooy xam-xam ñu jële ci aaya ni xam-xam dafa am solo yàlla bi mu bindee xam-xam bind xel dafal nguur ñoom ñett xam-xam xel nguur ñu ne xel xam-xam ak nguur na kenn jiitu xel jiitu xam-xam jóg topp ci nguur jóg topp ci ñu ne yéen ñaar fu ngeen jëm ñu ne ñun du nekk ak ko amul xel gis nga imaam ali wax na ci benn waay wax ju bëri di tàgg xam-xam nee na lépp lu doomu aadama am di maye day jeex ba mu des xam-xam ku tal xaalis di joxe li ñu topp la rek nga nga ku ñëw nga jox ko da ngay jeexal mais borom xam-xam bi ne nit ñi di ñëw mu leen di jox mais day day yokk loo am day jeex ba mu des xam-xam iblis dugg na ci benn jàkk gis benn waay di julli mu gis borom xam-xam bi di nelaw mu ñëw di upp borom xam-xam bi ñu ne ko waaw yow lay def nii mu ne kee xamul dara kii bu yeewoo day defar li kay di yàq fadlul aalimi alal aabidi ngëneelu borom xam-xam ak kuy jaamu yàlla ko amul xam-xam mi ngi mel ne weer wi ni mu gënee leer yeneen biddéew yi kon il faut ñuy jàng ñu góorgóorlu ñu sonn suñu bopp ci njàng bu kenn wax ne man mag naa mënatumaa jàng wala léegi dépasse laay daw fa nga jàng waaw loolu moo la ci génne ñetteel mooy fadlul itiraaf bil ajzi ngëneelu reconnaître tële soo tëlee soo xamulee nga ni xaw ma mënoo nga ni mënuma du gàcce malaaka yaa ngi xamuñu ñu ne xamuñ subhanaka laa ilma lana léegi nag bu ñu demee àdduna ba kenn dootul wax xamuma mënuma da ngay woo benn waaye na ko mën nga liggéey li mun a woy je suis l'homme douze métiers benn waaye doon wax ne do ari Dakar waaye métier foofu benn mbokk paaba moo doon wax ne do ari Dakar waaye métier foofu ñëw naa Dakar rek métier yëpp laa mën loolu dafa mun nekk da ngay spécial da ngay da ngay jàng dara mais yow lu ñu wax rek nga ni mën naa ko lu ñu wax mën naa ko lu ñu wax mën naa doo wax mu mënuma loolu mënul nekk ku mën lépp amul waaw ku mën lépp kooku yàlla kese la doomu aadama dafa war a jàng suñu waxee lenn loo mënul nga ni mënuma ko dem leen ci ñoom diw ñoo ko mën waaye mënuma waaye indi ma seet yàq loo mënul mënoo ko te pourtant loolu ñun ci suñu wàllu diine rek lañ ko nangu mais tey boo demoon ci benn waay ne da nga war a pikiir nga ñëw waa ji ne non man de jànguma pikiir mais indi ma essayé la yoo ah këcc pikiir bi ne ko jurur ne la mënuma mais kaay ma essayé da nga naan gis nga dama yaakaar ne yow wala ah léegi lu tax nag nit ne la mënuma ba pare nag dina jiite mënuma mais nañ essayé même oto ku la ne mënuma ko mais nañ essayé duggal nekkal ci kanam takkal sa ceinture mënuma mais nañ essayé doo dugg wala da ngay dugg nañ leen delloo suñu xel nit bu mënul na ne mënuma malaaka yaa ngi nii tedd bay bëgg a dee màgg mais ba ñu mënulee dañu ne mënuñu ba ñu xamulee dañu ne xamuñu ñeenteel mooy jawaazul itaab ala man iddaa daawa huwa gayru mutaahilin laha yoonal nañ yedd yedd nit su waxee loo xam ne su wootee woo loo xam ne du dëgg ñu yedd ko yedd ko loolu dinañ ko jàng ci aaya yi ndax borom bi tabaraka wa taala def na ko ak malaaka yi wax na leen ne inni alamu alam aqul lakum inni alamu gayba samawati wal ard wa alamu ma tubdunu ma kuntum taktumun dinañ jàng ci aaya yi ne doomu aadama manees na kaa yedd ci su woote woo lu mu nekkul di liggéey ci ndox mi ñu ne la bàyyi ma monté la sa compteur ñu jàpp ko dañ ko war a yedd comme li gars yi di def yenn saa yi dem ut mbax ne police wala mbubu police sol ko te duñ dara suñ jàppee ku mel noonu dañ ko war a yedd nit warul wootewu lu mu nekkul nit warul wonewu wala di def démarche wala di wax loo xam ne amul yoo xam nga ne du loolu mbokk yi incha allah lii moo doon darsu tey bu amee ay njuumte ñu ngi koy jégglu ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu def ci ñun dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu